yardımcı.

عند الذي جاد لي بالنيم والنور لماذا سعدد على بزير النذير كلا كمنون نبيك المستقيم

Beragama sila, agama itu beragama Kami Sering baca. Indonesia. Indonesia, nga xam ni danga cee woote seen sant seen Saliou ñu sant lool ci dimbali yu ñu dimbali yóbbaale ñu kii ñu ñaan nga yàgg koo feete yàgg koo woote yàgg koo ànd ak yow ñu sax ci di sant Serigne Saliou di ñaan sa jëmm ji ñu mu yàgg fi lool ñu damaa ànd ak uh, waa Xelkom may tuub nag di sàkkuwaale ci jëwri yi fi ne ñu jege si ngir ñëw indi la suñu addiya ci sa bis bii nga xam ni kat luñ ci defoon daa fekk daa yegseegul suñu loxo yi waaye bu ñu amoon at nag ci biir jóor la ndax ni nga ñu def ni nga ñu melaat fa nga ñu jëlee ak fi nga ñu indi ak fa ñu yóbbu te mu wóoru nit ñi moo gën fuuf fii ñu ne ñun kat am naa ni du ma yàggal wax ndax ca njëlbéen ga damaa am yéene waaw damaa amoon yéene maanaam utal la ndàmmaar oto bu rafet bu dëppoo jamono boo xam ni yow rek yaa koy am. Oh, oh, boo weeree si pied rek. Ah. da ngeen avancé ngeen bàyyi pied. d'accord dama dama damay bañ affaire bi yow baax dem ba gis ni jamono jii ñu toll day ni bu ñuy wax ci wàllum oto moo moo moo jël pay bi ñu la wax numéro un dañ naan marque Lexus bi moo ci féete kaw ndax

lii ñëw moo dàq tuus kii roog te man day am naa ci yaqin ñu ngi sant nag ci ni mu demee ndax kat lu ñu yéene woon xol yi yow lu ñu la defal daa tegewul loxo yi barki Sëriñ Tuubaa bu ñëwoon la bi ci dañuy ñëw suñu xol yi yaatu ne la ñu bëgg yow la ñu gëm yow la ñu miin yow la ñu xam ñu ngi sàkkuwaat nag ci sa jëmm ndax defal nga mu defal nga mu defal nga mu lépp ba ñu defalee ngërëm lañ am lépp ñoo ngi nii daal tey ñu def say jumtukaay lu ñu romb xool sa ñu ngi fexe rek di màndargaal suñu suñu suñu cofee teew maa ngi ko ànd ak sama mbokk daal bi yii nga ma boole. jërëjëf muy waatal. loolu. liggéey baa ngi sëñ Beto. keroog ba ñu joxee suñu jëkk ndax ba pare. def nañ ci une semaine. ma doog leen wax dañuy tëddal seen oto. kooku ay aar. ma ne leen dañuy jëndal seen oto. ñu ne ma ay ma ne leen ay.

ñu ngi sant ci lii nga ñu def ci taalibe li nga ñu def ci say taalibe mbiram lii nga ñu defal xéewal bi nii nga ñu def nii nga ñu tëggee dañ la jox barki Sëriñ Tuba nekk du loo xam ni fu nu dugg dañuy wekk dañuy jox cër ay xale yi ndaw lañu bëgg nga ñoo yónni ci biir kilifa te bu ñu demee bu ñuy wax dañuy def te loolu yow sant nañ la sant nañ la sant nañ la Aray ko din ko siya din. Ang natin, minyak kasi mga yek din. Minyata? Dito sa ako sa nalisi ko isa isa. Oh. Adi Yuji? Oh. How oh, you got oh. to. Oh. Yaptın. Yaptın. Yaptın. Oh. Yo, you better jump on it. Go. Go. I don't know how to get it. No. Hey, bro, bro, bro, bro, bro, bro. ma taxee ma yéeg fa léegi la yéen ñëpp yéen ñëpp a baax. xaalis xaalis rek lay jaay. fii dañ joxe adiya nag. mu ngi toll si はい。 moom xam naa ni ndeysaan mbokk taalibe yi waaw seen yéene mooy yóbbu tuwaay wi sax waaye lii day ndamoo wuñ ko tiitaroo wuñ ko barke Sëriñ Tuubaa dañ koo xeeb lool waaw mooy ni mu la ko waxee rek ñun dañ laa yéene lu ne ndax danga ñoo defal lépp yi nga ma booleel fii ba Europe jëwriñ Mor Thiam sànq la ñëw Gabon wax dëgg yàlla kii sant naa ci mbooloo mi nga ma boole ñu ma noppal ñu ma fonk ndax sa jëmm ci te lu ma leen woo ñu fekk si waaye maa ngi sàkk nga yokk sa ndimbal ci maa ngi sàkk jala jala jala gën maa tey nga defal ma gox ba ku ma la war mukk bay đi sắm đi sắm tiền xuống tầng đi sắm cái sân không Puedo ver lo que quiere cámara ahí para ir. Algo. Ahí de. Kamu mana? Kamu gambar balangi deh.

ngeen boole mag soxna Adja Sabi mu le 29 mai. waaw 2015. ma nekk étudiant samay at toll ci ñaar fukk ak ñeent. ñu dimbali may ma soxna may ma doom ngeen dimbali ma stabiliser yéen a ngi jëriñ seen i yàgg leen lool tamit dina jëfaat Serigne Mbecc Serigne Mbecc jaamu Serigne Saliou yàlla fi yàgg lool tànn ko wér Serigne Mbecc jaamu Serigne Saliou yàlla fi yàgg lool tànn ko wér peut-être ki ñu leen di siyaare bu baax di ñaan ngeen yàgg fi tamit ñu ngi leen di siyaare ci seen bés bu màgg bii di bésu 17 avril bés bi ngeen daje ak Serigne Saliou. nga xam ni ñun jantaakoon Serigne Saliou dimbali ñu nu àgg ci yëg ak xam fof bés gën koo kawe ci ñun ndax lu nu am bés bii nga dajeeg Serigne Saliou moo nu ko may ngir ni kat mbir boo ko amee am gi nga ko am may la ci xam-xam nga fonk lu mën a doon loola ko may da koo kawe 17 avril moo ñu may ñu am si jëmm ji nga xam ni bi ñu la amee la mu am suñu njëriñu àddina ak ndax Serigne Saliou moo ñu digal nga ñu nañ ne def lay suñu yitte te Serigne Saliou kat ku ko am xam ne lu mu la def loo yitte lu ne. boo ko toppee jariñu àdduna alaat te loolu lii di sept avril moo ñu ko may kon noo ngi sant ci tawféex bi nu am ba mu boole ñu ci sa taalibe bi bopp yi moom Serigne Saliou cant googu yi nag ci sama làmmiñ ci làmmiñu bépp cantaakoon rawatina ñun ni nga xam ni dañu say taalibe yi bopp nga boole ñoog sa soxla su tedd sii di soxna Adja Saliou Diour sa mos ngi lay sant sëñ ngi lay sant ci ngi lay sant ci wér moom la nga xam ne fii daanaka mbon daa dem ba doon fi évidence waaye nekk yoo Serigne Saliou mooy def lu kenn dul xam ndeke booba dana waajal jamono nga feeñ ba fu mbon mën a toll nga mën a defar ba ñëpp xam ne defar na barke Serigne Touba Serigne Mbay ko tax nga àdduna si ñëpp tàmbalee yeewu nag ci lii sëñ Saliou muy njariñ li ngeen doon te njariñ bi loola duñu ko jot li fekk liggéeyul liggéeyul leen ngir ne moo ne ak murit dee su ko te lii jariñ ak murit ci liggéey bi mooy ndigal bi te ndigal bi kat sëriñ bi sëriñ Saliou ne la yaay man may yow kon def na la ngay sëriñ bi kon ndigal loolu jox ndigalu sëriñ bi jëfe gi nga koy jëf mooy suñu njariñ kon ndeke li nuy jariñ mooy topp la rek def na te di ko sëriñ Saliou wax loolu nag suñu mucc suñu mucc ci ne suñu njariñ ci ne suñu tawfeex moo ci ne sëñ Béthio dimbali nañu loolu li faaw mu sant la barke Serigne Touba ndax kat ku la defal lu bépp gën tege ku la defal lu ñëpp gis war ngaa gore ba wax ko ca kaw sant ko ba ko saxi nopp dégg defal nga ñu lool ñëpp bu ñu leen boole woon lottoon man ci mën nu ko defal kon faaw mu wax lool képp kuy dégg xam ne kat sant na ma barke Serigne Touba bokk na it ci li ñu leen di sant. addi Adja Saliou yi laa bëgg nga jóg waxtaan ci. jërëjëfati Serigne Sall jërëjëfati Serigne Sall Serigne Béthio jaamu Serigne Sall yàlla na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Béthio jaamu Serigne Sall yàlla na fi yàgg lool te gën a wér bu tedd gi jërëjëf nga lay siyaare waat te di la santaati bu baax te di la ndokkale waat ci tawféex ak ndimbal lii nu amaat ba fekkee ci sa bis bu tedd bii sa bis bu mag bii nga ñu jagleel di ko sant Serigne Saliou sa bis bu dajeek moom nga fekkee loolu it jëf yi fi teew ak yi fi jot a teew yëpp te jëf ji mujj ci sa taalibe bopp di sa soxna bopp di sa jëwriñ di sa jëwriñ universel di soxna Adja Saliou Thioune sunu ndey ju tedd ji ñu di ko lokkale yi bu baax ci jëfam ji mu jëf ci sa jëmu ji muy addiye addiye nag su ko jëfee jox la ko nga digal nun nu wax ci dañ ci dul jéem a wax lu dul nettali lenn ci li ci Sëriñ Tuubaa wax ndax li ci sëñ Tuubaa wax moom addiya sëñ Tuubaa ci waxal boppam la mu ca wax it kenn mënta xam lépp sax te la mu ca lëm te waxu ko loola ëpp ndax kat ak taalibe sëriñ Tuubaa mi ne ko feeñalal ci àddina moo ca feeñalaale addiya waaye mu def ko it ci biir ak taalibe lool njëriñ lu toll ni moom déggagun ko baa nu gis ko baa nu wax ko ci fenn ngir la mu ca wax addiya la ko jox doole ja mu yow mooy Serigne Touba mi ko moom ndax ku dul Serigne Touba moomu moo tax Serigne Moussa Ka sax way na ko ca wolof ya addiya ngay jooy naan lu ngeen may laaje sagam du ngeen ma jox borom jumaa ji borom jumaa ji moom kenn la mooy Serigne Touba ndax mooy Serigne bu matu Serigne bi Serigne Touba moom yi ne bi mu ko feeñalee moo wax lan muy addiya wala moo wax lenn ci lan muy addiya te sunu mbokkum taalibe bi mu ñëw léegi dóori université Ousmane Faye am na lu jël yu jub te mooy li Serigne Saliou bu ne dana fekk fa dara nekkul mu def fa dana fekk it fu lu néew nekk mu baril ko dana fekk it fu lu bari nekk mu barkeel ko Serigne Touba Serigne Modou Moustapha doomam moo jël addi yi junni yi jàpp ndaw yónnee ko ko ca njariñ ne ko sama addi yaa bi ndaw li yegg see ba jox ko addi yi de sëñ Tuubaa nangul ko ko ba noppi di ko tontu nag ci lenn ci njariñ li mu def njariñ loolee nag tontu boobee mbooleem ko yaakaar sëriñ Tuubaa ku ne amaana ci ab cër bi mu koy tontu bokk na ci bam ko falhadiyatu sa jëf jii nga jëf muy addiya taksubul muridina ila sahadati bokk na ci ay njariñam day ñotti ay murid di takkale ak sahadati daari ni muy texe adduna ak texe alaxira addiya baax bi ci wax rek ne addiya day ñotti ay murid ci nga xam ni ab taalibe mën a joxe addiya mu takkal ko ci ni bokk na ca njariñ wa hulwul maqaamaat day kaweel ay maqaama fa yàlla képp ku la man ci addiya moo la ëpp daraja fa yàlla Sëriñ Tuubaa ko wax bokk na ci njëriñam mu ne ko wasaqul aqraan yi bokk na ci njëriñu addiya day tax nga jiitu sa maas ku bëgg a jiitu sa maas daal jërul ay pexe jërul coono bari Sëriñ Tuubaa nee na ku la man ci addiya jiitu la tudd ko ne ko bokk na ca njëriñ ya wa adamu ruhyatil malakayni fil xabri ñaari malaayika yi laaj ci bàmmeel muy munkar ak yi joxe katum addiya bu leen gis Sëriñ Tuubaa ne ko bokk na ci njëriñ ñu joxe addiya wa tuulul humri day tax a gudd fan fi ne ku fi bëgg a yàgg jërul ñaanal ma mu gudd fan damaa bëgg nga ñaanal ma gudd fan Sëriñ Tuubaa ne la jëru ko fexeel man addiya rek nee na ko la man ci addiya gën dafee yàgg ndax kii wax mooy Sëriñ Tuubaa kooku lu mu wax loolaay wax ja loola rek kaam nee na wa tuulul humri joxe addiya day tax a gudd fan sëñ Tuubaa ko nee na wa kasratul maali joxe addiya day tax a bari alal ñaaral ma ma bari xaalis daal nee na matu ko nee na ku la man ci addiya ëpp la fa yàgg yàgg yàgg suuf du lekku yaramam ndax suuf attanu da lekk yaramul kuy joxe addiya sëriñ Tuubaa ko waxaata mu ak lu duud yi sëriñ Tuubaa ni bokk na it njëriñu addiya wa duxuulil janna bi xayri xisaab yi dangay tàbbi aljana ci lu dul ñu lay isaab joxe ko dul addiya foo déggee tàbbi na aljana te isaabul ko kun isaabul dangaa jaarul bis penc képp ku jox Serigne Touba addiya tam la koy nangul dangay lekk rek dem sa kër yaa ngi dégg Serigne Touba na bokk na it ci njëriñu addiya ku ko xam ni da koy joxe ak muccam tey jii ak ëllëg bi jëm yàllaa ko ko garanteel yooyu mu jot a lim rek bu tey ma amul lu mu sa feeñ. loo xam ne làmboo na ay njëriñ yi toll ni njëriñ yi mu wax te loolu bëgg da ngeen ndekete bokk da njëriñu la biir daal di jaajowaat ne daal di fafil nekk na ci biir addiya manaafihun ay njëriñ yooyu laa yukkutabu bi aqlaamin Sëriñ Tuubaa nee na garab yi sax ci kaw suuf garab yëpp seeni seeni bant suñ ko mënoon a sot def ko xalima géeji àddina doom daa ji ñu jël bant yooyu di sëpp ci daa yi ngir di bind njëriñ ñi addiya làmboon sa jurtu koo wax daa ya jeex xalima ya jeex daduñ ko jot yëmu ca de wala yum daxu di kàllaam yi Sëriñ Tuubaa nee na mboolem lu am kàllaama di wax nit ñi jinne yi xar yeeg bëy yi ndax ñoom ñëpp a ngi wax kat dañoo bokk lu ñuy waxee rek ak lu ñuy wax loolu jàllaama di wax lu ne bu ñu àndandoo woon di waxandoo te kenn ku nekk yaag sa morom du ngeen bokk lu ngeen di wax ci njëriñul addiya ci li ma bindul ñëpp wax ba lu te duñ ko jot ñu ne ahad ah, yi mu ni déedéet yëmul foofu benn addiya l'islam dali jënn jëf doo jëf ci te yàlla nangu ko bokkut ak jëf rek man jaa a bil hasanati saa yoo jëfee wenn yiw yiw balaa koo jëfe tudd yàlla dafay nangu ba doo ko tudd aw yiw fa lahu asru amsaalihaa yërmal ne yàlla dagal na la fi juróom-ñeent bi fukk sëñ Tuubaa nee na loola lislaam di wax bokkut ak addiya ñu def ah, addiya nu mel mu ni benn addiya fal addiyatul fal addiyatul waahidatu benn addiya yu gisaa yàlla ngi koy fay al aqalu la gën a néew la gën a néew moom ngeen di wax minimum la gën a néew fukki junni ak ñaam xam nga ni fukk ak fukk juróom-ñeent fukk Nee, das ist doch was denn los? Nein, der Mühe. Hallo, Mädchen. bii Serigne Noël Sadio Soxna Adja Sadio ak bokki taalibe bi yi bokk nañu bokk nañu ay daara li Serigne Saliou Samb wax ci seen addee yi doy na

toll nii ci xaalis ndax jox nañ ma addiya ci fas bu ne bu ñu ko doon valoriser mën naa am sax mu toll nii waaye wala boo bugg waaye Ako ka na? Ako ka na? waaye sëriñ bi waaye dem leen waaye ma ni

daanaka ne ko yóbbu gën a takk suuf ah. ndax waaye ah! hmm. ma de rafet naa njort ci ñu ne sant gi ngeen sax guddi ak bëccëg man day wóor na ma ni lu mënta indi amul te wéewuñu ko seen eh, ay soxna Dia yaa sa mbooloo mi nga te da ngeen maa fekk may sàkk te tàkkoon yi aw ba kenn ci ñun ngeen di seen avril bii nii ngeen ci doxe daa mus sa feeñ ci jamono di seen avril boo xam ni dem na ba lu su doo jëf baro dee ay murit di ca tàkkoon ba dëgg de lu su doo jëf lépp lii nu jëf lady maanaam sa jaaxal bi ma ko jaaral de ma ko jaaral waaye la nga ma maa ngi koy seereloo it sama taalu bi yii ab jeex ëllëg du férié te day kilifa ci gouvernement bi di maire ci Malicounda moom mii mooy sunu maire

Non chance mu nekk c'est un directeur national de l'État sénégalais Nous dogal la yor un collectivité locale de commune au l'écouter. لا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا حي يا ذا الجلال والإكرام jërëjëf sëñ Saliou jërëjëf sëñ Saliou sëñ Saliou kenn du moom waaye sëñ suñu sëriñ Cheikh Béthio Thioune jaamu sëñ Saliou yàlla na fi yàgg di wér yàgg teg tey njabootam gii ndax njaboot gii kat ku leen gis ñu jëf nga naw ku leen dégg ñu wax nga respecté bi sëñ bi yaa ngi def lu am solo ci xale yi éducateur bu mag ndax yow li université bii wax ne vingt quatre ans la am ànd ak jëwriñam bii sa soxna def liggéey bu rëy bii pare taxaw wax kàddu yu rafet yii yu jub yii te amul lu dul vingt quatre ans ku xam xale man mii jàngale laa njëkke jàngale ci laa njëkke ku xam nit di nga xam ne macha allah defal nañ ko. waaw lan la ñuy séntu ci nit lu ëpp ñu defar ko nag ba bëgg lu baax di jéem a rawante ci lu baax di jéem a teral sëriñam di njëkkalante ci def lu baax ak yóbbu àddiya ak am ngërëmal sëriñam ba pare boole ci wax ay kàddu yoo xam ne lépp rafet lépp jub mag sax mënut a wax yooyu kàddu di muy xale bu ndaw ci saa yi kon yaa ngi def cax jamoot gi ci xale yi ci jeunes yi. lu amal solo réew mi yàlla yàlla yàggal fi bu fekkoon ne ku sa mbooloo di ci def lu baax ak rawante ci njàmbaar def lu baax kon Sénégal yëpp baax la ko yàlla fay ñu lay sagoo bu baax ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp nag xam naa ne cant gi laa njëkki waaye cant nag mooy njëkk mooy mucc maa ngi nuyu njaboot gi yëpp ci njëkkee say soxna say jëwriñ di la liggéey liggéey bu rafet teraanga bañ ma defal ci màggal ga ah soxna Ayda macha génn néegam jox ma néegam loolu rëy na ak soxna yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu seen njaboot seen xaadim Diop seen Salim. Gueule Tapée ak mboolem njaboot ñoo ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp te di nuyu di ziar sa njaboot gii nag nga xam ne amoo lu dul ñoom.

sedd na ci wax ji Đang mới rừng. Bay bay bay lên bên tới cái được, tới cái được. Assalamu waaw rahmatulah yàlla moom bëri na. ñaaw bu ñu santee suñu borom. sant Serigne Touba baax am tawfeex fekk gis ci sant bu baax nag soxna Bali moom Serigne Mountakha dëgg la soxna Bali moom Serigne soin bu waaye soxna Bali moom Serigne Mountakha la booy wax loolu jikko ak qualité bi ko may tànk yooyu mu jaar. ñoom xel mu dal ak rafet mu topp ci sunnaay tànk yooyu rek la jàpp yàlla na nga yëg ak jàmm yàlla na mucc ca soxna si dafa wax ni xaritam wëllëree ku ko bëgg koy fekk poroxaat ak i teraanga di ko fekk ci magalu Cheikh Soy bu Mbàkke gi ñuy def ci koor gi ak i teraanga fu mu nekk nga fekk ko fa waajoon nag ba sa kanam mbokk yi waaye yoon wi ñu nekk dafa doon ndigal dafa doon lépp Cheikh Mouhamed Mountakha Abdoul Bachir mi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba ci kaw suuf yàlla ko suñu borom bàyyi te guddalu fanam bërili cëram ba mu àggale bébé yi bëgg a liggéeyal maamam yépp ca naan ko am moom am gan tax mu gàllankoor ba tax ñu di ñëw moo tax mu yebal nga xam te ni si lu ko ñor lu ne ca ñoñor la yem foofa la kii soxna maam Fatou Mbacke ñu di gën koo xam ci soxna maam Fatou Baye Fall tur bi rek am na lu muy wut Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Abdoul Bachir mi Serigne Touba ci kaw suuf mooy wajur côté ndeyam Serigne Adama Guèye di maamam kii di bërëbu ni taxawaa taxaw taxaw taxawaayu bërëbu ni yoonu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasul ndax Serigne Cheikh Astou Faye moo ko jur Sénégal gépp xam nañ ko Serigne Abdou Rahmane moo ko jur maam Thierno Serigne bi leen ko nit ñi moo ko jur mu boole ci ni bu mbooloo mi teew ba mat seede na nga leen seedeel sama cant ci soxna ay ndax ay jëfam ak moo ko may ndax nit ku nekk ci pëstéef lañ lay fekk bu liggéey te soxna yi dem na pëstéef am na yitte am na jëm seex bi ginnaaw bu ñu la ñaanalee suñu borom bàyyi la fi ci wéral say cër soxna Bally ne mi ngi lay seedeel cant bu mu am ci su tay bi gërëm na mi ngi koy ñaanal mi ngi koy ñaanal ci biir di ko ñaanal ci bitti ndax bëggeel ak mbañeel loo ci def rek mu xam te soxna yi de bëgg na ko xamal ko moom ba Sénégal képp képp ni mu ko waxee damay tënk. ndax du aada ci yoonu murid sa kilifa teew nga yëkkati say kàddu ci sama kilifa moo teew ndax bu dul dara dañu bokk bëgg sota jaay ak ñoxo raf si jaay may sët ci jaara sàmm mu xam ma bu baax jàll jumoo dëkk Touba kon bu ma fi teewee taxawee fi ñaari casquette bi ci ëpp doole di ndigal ndax jóge fa jóge ci sama kilifa di soxna baa ni ma ànd ak njabootu sëriñ bi jaaru na ma seereel sëriñ bi kàddu yooyu santugo gërëm ko ñaanal ko te ñaan yàlla li def juróom benn fukkat yu tàmbali ren ci barke Cheikh Ahmadou Bamba allahumma salli ala sayyidina dañ ne ma ñu ñu te ñu ànd ñoo yow ba ca bâche ba gis sëñ bi mu xam ne kat moom boroom moo ko bëgg moom la koy ñëw léegi ànd yow ba mu xam kat ñëw nañu gisum bii ñoom bi ma nekkee ca màggal ga proxaan ga moom lii la soxna si doon yebal yi ñu baax mais ñu mu baax ñoo xamante ni kéemaan lañu waaw sant baax moom la jiital eh. eh. si di santaat bu baax nag ñu mel ne maa ngi nuyu tedd yi suñu ndeyu suñu ndeyu tedd yi ak sama rakk yu tedd yu baax yi di la bu baax suñu koy yàgg koy yàgg loolu jox nañ ci muy mel ni kat dañoo ñëwoon tey ñun waa Daaru Salaam mat la buñ foofu yi muuru daara yi dañoo ñëwoon tey sa bis bii indi suñu jëfu cofeel muy addiya dañ koy tàmbalee ci mbubu yi génnal mais ah? xam nga boo ko la xam nga pied yi dañoo lem pied yi ndax yéen pour ngeen toog comprendre 27 grand boubou 27 turki ak 20 grand boubou waaw 20 20 27 kaftan ak 20 grand boubou ak 26 grand boubou noonu la total bi daal 46 la waaw ñu mel ni kon ubbi 46 la.

maître Lamine Camara bar bar Thank you. नहीं हाँ।

avec honnêteté. may nañ ko yor may nañ ko yor. teg nee na xum ko rek jox la sox rek tëj ko ci benn taalibe bi yëkkati. Thank you. day xaw a suuf day ñaan nga yërëm ñu ndax du seen saal te jox at yii di jox ko jox ko ci nawet may nañ ko mu jàll. ah. oui. Daaru Salaam Murdari e Abel. Sırbe, Niyade Usulü'nde, Bordo, Milyon Elazığ'a, Adli 2012 milyon. général. dañoo dafa joxe dañoo def dafa joxe jëmale ko si commune bi waaye laata loolu suñu béykat ñoo ngi lay tuddal ci ñun wax dëgg ñu lay sant te ñaan yàgg waaye ñoo ngi lay jébbalaat suñu bopp ak naka laa ko te du la jébbal mbooleem mbooloo ñu boole.

jubluwuñ cee wane wu ndax leer nañu ne de dafa leen koy wax lu mu bari bari bari néew na fa kanamu sëñ bi ndax lépp mooy borom te jëf ji de li muy rëy rëy rëy rëy sa liggéey yow mi yaa ko jëf ndax 46 ba ngay ànd ak sëriñ Sall ba nga koy topp ca wutiwul fas wa boobee de ñu bëri ci ñun ñii topp la juddu kon bu ñu demee ba tey jii. nga defal ñu taw seen gure ji Serigne Saliou ngay lépp boole ñu ci jëm ji lu jëf ji rëy rëy rëy xam ne Serigne Béthio mii moo ko ji ñun nag daf ñoo dimbali sabab mu jaarale ay mbiram ci rek mu mel ni ñu na ñu koy tiitaroo di ko ndamoo waaye xam nañ ne lépp jëfam ndax ba muy ànd Serigne Saliou boobu ñun kenn suñu digg ba tax na ñoo ngi lay sant bu wér di ñaan la saxal ci ak taal sëñ Béthio bu ñu deew bu ñu xamati ñoo ngi sàkku ak taal ñoo ngi sàkku nga dimbali bi sëñ Béthio ba ñu doon taal bi ndax dañu doon jàpp ñu jàpp ñoo ngi ñaan nga yàgg ci dëgg ñu jëf ci ñu mel ni sama mbokk taal bi yii muy sa soxna teg yii muy jëwriñ soxna Mbose ak jëwriñ soxna Aïcha ñu ko may yoon bi léegi dañu waaw yëkkati waaw yëkkati ko yëkkati ko yëkkati ko jërëjëf sëriñ Béthio jërëjëf. jërëjëf sëriñ Béthio jërëjëf. yaa ko jëf. jërëjëf moo ko jëf rek. moo ko jëf. sëriñ Béthio jërëjëf. jërëjëf. sëriñ Béthio jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf sëriñ Béthio. jërëjëf sëriñ Béthio. sëriñ Béthio yaa ngi fi yàgg lool te wér. jot rek mu baax na. sa taalibe